daje woon pour euh, def li nga xamante ne bii mooy euh, réunion CLD préparatoire euh, grand magal de Touba comme ni ngeen ko xamee waxtu màggal gi daanaka jot na te réunion CLD bi mooy réunion bi nga xamante ne bii mooy réunion bi jiitu ginnaaw moom dina am CDD bu préfet di jiite dina am CRD bu gouverneur bi jiite. waaye ministre bi si wàllu boppam ministre de l' intérieur dina am réunion bu mu jiite balaa ñoo def réunion d' fii ci Touba. donc euh, ñu jàppoon nag euh, waxtu woote bi moom jot na daanaka ndax di des ci màggal bi daanaka matul ñetti weer ñu woote woon fii ànd ak comité d' organisation bi nga xamante ne bii ci présidence su Serigne Bass donc sëñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma nekk coordonnateur bi. daje fi ak euh, service étatique yi ñu sottante ay xalaat ci li nga xamante ne bi état war na ko jàpp comme ni mu ko daan defee pour que organisation màggal Touba édition 2021 nekk organisation bu mucc ay loolu lañ ci doon waxtaanee ñu xam le ne màggal gi ren aussi dafa nekk ci contexte boo xamante ni bi contexte bu particulier la waaye bu ñu xam la aussi ndax euh, daanaka ci contexte bu mel nii la defee woon màggalu euh, deux mille vingt donc nag koo defaat ci deux mille vingt et bi muy contexte Covid donc euh, nekk contexte aussi hivernage moo tax comme ni mu ko doonee woon daaw donc li nga xamante ni bii mooy wér-gu-yaram bi. dafay occupé waat même place bi mu occupé woon que daaw ndax jamono ji ñu nga xamante ne bi ñu ngi woote CLD bi daanaka Sénégal mu ngi ci troisième vague kon nag matukaay yi nga xamante ne bi jëloon nañu ko daaw donc dañu koy jëlaat ba mu mat sëkk wala sax ñu dolli ko di ñaan yàlla rek euh, balaa ñoo àgg ci màggal gi la nga xamante ne bii moo ñu daloon daaw dalaat ñu maanaam ñu seetlu ay cas yu bese ci anam bu gën a euh, raw sax suñu njort am na ci yaakaar bu baax ndax nag euh, ñun jàpp nañ ne ki nga xamante ni bi mooy tax ñu daje fi di waajal euh, bésam boobule déggoo nag suñu boroom déggoo boo xamante ni bi jàpp nañ ne dëkkam bi maanaam li koy aar moom xëj na mën na bañ a jógee si ñun waaye ci moom lay jógee ak si suñu boroom kon nag loolu moo tax ñu daje woon fii euh, on a passé en revue service maanaam domaine yëpp ginnaaw domaine santé bi waxtaan nañu ci lépp loo xamante ni bi ci wàllu sécurité la waxtaan nañu tam aussi ci lépp loo xamante ni bi ci wàllu ndox la ndox nga xamante ne bi lu soxal euh, Touba la ren nag ñuy wax ne am na ay jéego yoo xamante ni bi daanaka bi ñu génnee màggal bi ba fii ñuy wax ak yéen ci la nekkoon donc di am yaakaar rekk jafe-jafe yi nga xamante ne bi amoon nañ ko daaw dina xaw a wàññeeku waaye xam nañu itam ne màggal gi li muy indi ci mbooloo ndax jàpp nañ ne moom mooy deuxième événement religieux bu gën a mag après ak bi xam nañu ne faw mu am ay jafe-jafe ndox mënul ñàkk waaye suñu taxawaay mooy wàññi ko ba ni ko askan bi doon yëgee mu gën a wàññeeku. am nañ ci yaakaar bu baax waxtaan nañu ci wàllu assainissement ak énergie lépp loo xamante ni bi tam ci wàllu jënd ak njaay bi la wàllu xale yi wàllu matt mi wàllu élevage nga xamante ne bi jàpp nañ ne moom tam domaine bu am solo la ndax màggal gi kat ak ay bernde ñoo ànd wax na fi sànq lim bi lim bi mooy walla ne màggalu Touba wax dëgg fa yàlla comme ni ma ko waxee woon ca njëlbeen waxuma la sax dimension religieuse bi waaye dafay impacter positivement ci économie Sénégal donc jàpp na ne bépp activité boo xamante ni bi nit mi ngi ciy yëngu fii Sénégal bu màggal gi jotee li nga ciy yëgee ca bopp bokkut ak bu màggal ñëwul donc yoon la woon que état bi nga xamante ni bi moo fi nekk nekkal fi askan bi yépp bu ñuy waajal lu mel nii mu dugal ci loxoom comme nu mu ko daan dugalee di am yaakaar rek que li nga xamante ne bii nas nañ ko fi dinañ ko gën a consolider ci CDD bi gën ko consolider ci CRD bi ba dem ci kanam ministre de l'intérieur donc ñun jàpp nañu ne à partir d'aujourd'hui liggéey bi pour màggal bi commencé na donc li ñuy def mooy bépp engagement boo xamante ni bii service yi jël nañ ko ñu koy suivre au jour le jour pour que bu ñu demee ba ca bés ba la nga xamante ni bii état. donc euh, jëloon na ko comme engagement mu mën ko respecter à cent pour cent di ziar ak a ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér di rafet lu taxawaayam ci wetu état du Sénégal ndax ñu jàpp nañu ne moom réeroowul ak état ci benn fànn ndax lépp loo xamante ni bii ñun yëkkati nañu ko ci wàllu liggéey bi moom daanaka moom moo ñu si gën a jàppale te li ngeen mujj seetlu rek mooy bi fi mbas mi jógee ba léegi daanaka moom euh, gest barrière yi daf koy respecté li nga xamante ne bi moom la ko état santaane li des rek mooy ñun la ñu war nañu ko def euh, waaye jàpp nañ ne borom bés bi dina wattu bisam ba incha allahu rabbi nit ñi dina ñëw màggal si ci jàmm dellu seen kër ci jàmm te benn tolof tolof du leen fi dal te loolu amoon nañ ko daaw waaye ren lañ ko gën a am yaakaar